dal leen ak jàmm ci leeral point net ci lu gën a fës ci xëtam gu njëkk Thierno Alassane Sall descend Macky Sall sur les inondations quel échec kii di Thierno Alassane Sall moom nag dafa daal di wàcce ki nga xamante ne mooy président Macky Sall ci mbënn mi ndax leader de la République des valeurs di Thierno Alassane Sall dafa daal di tuite daanaka di wax li nga xamante ne mooy lu ñu toppatoowee mbënn mi maanaam gestion wa bu régime Macky Sall bii di def di jaarul yoon ndax moom kat nawet kat dafa doon lu yi di muslu te tamit daf leen di tiital lool mais ay quartiers yi nga xamante ne ñu ngi ci biir ndox ay milliards milliards yi nga xamante ne def nañ ko ci programme de prévention bu njëriñul dara toll ci juróom-ñeenti at plan d'assainissement bi nga xamante ne daanaka exécuté nañ ko ci lu toll ci 38 pour cent donc moom nag yaakaar na ni loolu échec la daal la tuité kii di Thierno Alassane Sall